sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey alhamdulillahi mawlid aysi wa safari man kaana fi adari aw kaana fi safari alhamdulillahi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 xaadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam seyxana wa xabibana wa wasilatana ila wa taala ahmad ibnu muhammad ibnu xabibillah an mbakki suñ mbokk groupe Média Nour Daarayni maa leen di lu bari lool nag di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram ak jàmmi njaboot gi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu gën ñoo defal tawféex noo ngi dellusiwaat fi ñu yemoon ci xaside ak siin eh, ngir lépp rek dañoo nekk ci taarif xaside gi ndax dama sëriñ bi moom noonu lay liggéeye ndax fa mu tàmbalee rek sëriñ bi ni muy tàmbali lépp da koy tàmbalee ci basmala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mépp mbir mu am njariñ soo ko tàmbalee wut ci turu yàlla wi barke du ci am day jàdde barke du ca am te sëriñ bi mbiram mépp cooju la koy tàmbalee ci tudd tuuru yàlla mu jëkk ba rek tàmbali ak tegginam yu mat ya ak xam nga mu xam borom bi tabaraka wa tàmbalee ci yàllaahu kon xasida gi xasida gu yéeme la xasida goo xam ne mi ngi tàmbalee ci yàllaahu yem ci yàllaahu nga xam ne kon xasida uluhiya la xasida tawxiid la te yàlla allah allah mooy turu jëmmu sa borom bi turu jëmmi borom bi ku nekk am na turu jëmmu muhammad mooy turu jëmmu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye des na ko wax yonte bi des na ko wax rasul des na ko wax njool màkka bari na ay tur naka noonu itam jëpp jàmbaar itam des na wax ne nangam la tudd waaye tur yañ cee toxalaat mu di ay meloom day bari lool waaye allah moom mooy tuur yàlla wi nga xam ne dëgg dëgg jëmmam jëmmam dëgg dëgg tur yàlla wi gën a màgg tur yàlla wi nga xam ne moo làmb mboolem tur yi ndax yeneen yépp dafay ñëw di indi ay melo allahu nuuru samawaati wal ardi allahu xaaliqu kulli shay'in allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum allahu kon yàlla borom bi tabaraka ko taala turam boobu mooy tur zaat mooy turu jëmm yeneen tur yëpp ay yeneen yi ñëwaat yi ñu ko xamee juróom-ñeent fukki tur yi ñëwaat ak juróom-ñeent wala bu ca bokkee yooyu yëpp ay melo la yuy melo borom bi tabaraka wa taala da nga ndax allah moom eh, kenn du ko rahman sax nit ki dina tudd abdurahman wala abdurahim wala eh, abdul wahab abdul muhaymin nangam abdullah sax dinañ tudd waaye jëmmi turu coqet allah moom kenn mësu tudd yonte bi sallallahu alayhi wa sallam turum yi bari bari am na fu mu koy tudde rauf rahim am na fu koy tudde xafuur am na fu mu koy tudde jéggalaakoon beeg rahim ak am na fu mu koy tudde waddu am na fu mu koy tudde tur yooyu yëpp nga xam ne tuddi melo la yàlla di ko tudde majjiit am na fu mu koy tudde tur yooyu waaye turum bi di yàlla moom mosu ko ko tudde fenn ndax yàlla moom rek mooy yàlla te moom rek moo ko tudd moo tax muy tur yéeme woo xam ne sëriñ bi ki nga xam ne xasida gi ku am solo la ku barkeel la ku diis la ci peese ak lépp may wax ni mu ngi ko tàmbalee yàllaahu waaye bi mu ko bi ko xoolee yàllaahu yi day war a nekk ci xaside gi cinquante quatre juróom fukki allah ndax xaside gi juróom fukki bayit la te bayit wu ne am na ah, jeexa jeexa na yàllaahu waaye am ñaari bayit yoo xam ne dafa baamu takraar feddilee ko allah muy wa dammiran kulla a'da'in tudiru bina xablal wusuli lana yàllaahu yàllaahu gis nga kon la tax mu feddalee ko loolu taakiid ku nekk xam na ne ndax bu la mu cay jëriñ la mu def loo fonk lu la ñor loo gën a fonk gën laa ñor nga koy feddalee mbir waaye nag wa min fuduihima yallaahu yallaahu ay wa min qabihati dunya summa axiratin wa min fuduihima yallaahu yallaahu gàcceeg àdduna suuf suuf suuf suufee àdduna naqaru àdduna mbasi àdduna ak àlaaxira xam nga jar naa muslu ba musluwaat ko jar naa wéeru ci yàlla ba wéeruwaat ja waaye itam xasida ga itam da koo tàmbalee yàllaahu ndax bay ru jëkk rek yàllaahu bil mustafa sindiidi yàllaahu kon yàllaahu bil mustafa sindiidi yàllaahu yàllaahu la def defaat ko yàllaahu téye ko def xab wu jëkk wa rek dafa am ñaari yàllaahu ñaari allah bil mustafa sindiidi yàllaahu yàlla wa bi xalilika ibrahima yàllaahu boobu moom mooy continuer ci benn benn ya wa bi wa bi xalilika ibrahima yàllaahu mooy daaneel ba kon boo boolee ñaar yooyu ci wenn xàpp wi mu indi ci ñaari yàllaahu ak ñaari baamu yële ak juróom fukk ya nga xam ne benn bu nekk da koo daanee yàllaahu mi ngi lay mi ngi lay jox 54 allah allah nag borom xam-xam yi dañuy wax ne mi ngi taxawee 66 allah 66 la taxawee mu mu zaat loolu nag boo ko multiplié woon cinquante 54 yooyu soo ko multiplié woon ci 66 mu ngi lay jox 3564 kon secret allah bi ñëw ci xaside gi ndax baamu bu mu ko baamu ak ñor bu mu ko ñor. ak fulaal gum ko fulaal moo tax mu ñëw ci trois mille cinq soixante quatre adat bi nga xam ne bii mooy li mu secret bi mu secret soo seetee lu mu jàpp ci alquran fa sa taskuruuna ma aqulu lakum wa ufawidu amriya ila allah inna allaha basirun bil ibad ci suratul xaafiri 44 nga xam ne sëriñ bi moom daraam du asaar <laughs> lépp lu nekk rek am na fu mu tegu am na fu mu tegu waaw